dimbali nag te nu oto rek lan lan lan am ku nu dimbali ci wàllu regroupement ak wàllu euh, euh, ñoo ngi lay lancé appel di la xamal ne nun daal ñoo ngi ci ñoo ngi sa ginnaaw. kontaan naa tey ndax fan yii yëpp su ma fi jaaree ay nit ñi ngi wax idi idi mais wax ngeen ma démb ne ma. loolu li tax ñu di ko def mooy yéen a ñuy romb taxawu leen ci ñun da ngeen a war a taxaw man dinaa taxaw ci seen pegg jàppale leen ci lu ma war a def li ci njëkk mooy li ngeen wax ci wàllu mbaar mi li koy def ja ko doon koo xam ne yaa fi waxoon bu kenn wuyoo Mbàkke assemblée national mais loolu boo jaaxlee rek nga daw ñëw benn candidat muy Madické Niang mu wax lu garaaw ndax nee na day jël benn ministère boo xam ne daf koy jox Saint-Valentin saint la wax mooy ñuy bëggante jigéen a góor guy bëggante daan ne ministère boobu daf ciy dugal affaire religieux ñun affaire religieux nu mu mën a ànd ak Saint-Valentin wax lan la Idriss Seck na nekk na fi premier ministre nekk fi directeur de campagne président de la République nekk fi directeur de campagne président mais deful dara Touba kon nag président Macky Sall li mu def Touba nañ ñun ñëpp ñu maas jàppale ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm. kon Modou loolu na seen xel dal fii bu may dem tool ya fi laay jëlee taxi samay samay waa kër fi la ñu jëlee taxi hôpital bii poste de sant bi fi la sama waa kër di fajoo jën jël le askan wi kon loolu waa fii laa ko defal waa laa ko defal. kon na seen xel dal ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen wax ne danañ continuer gën a jege ak yéen ba yenn yi man koo dox ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen. mooy bi muy ñëw ci réew mi fi mu fekk gaz mu di ko jar léegi mën nga prix boobu mën nga cee jënd gaz jënd ci litre diwlin jënd ci kilo suukar jënd ci kafe litre diwlin mi ngi 800 francs kilo suukar mi ngi 600 francs ak café kon loolu yaakaar naa ne bu fekkonte ne ci loolu rek la yem. dayu na sëkk pour ñu falaat ko damay wax toujours ne Macky Sall képp ku néew doole yow moom nga war a jàppale ndax moo gën ci ñu néew doole. billaahi wallaahi taalaahi jënde am na ñu ne mi ngi fekk saaku ceeb 15000 francs mais man 14500 laan jënde léegi mi ngi jar 12400 te noonu nga koy toppee benn par benn ñu ne ma amagul juróomaat ñu ne ma du dëgg rosi ordonnance bi lu am ci pharmacie bi dañ ko koy jox grâce à Macky Sall alxamis la suñ gerte jeexoon barki démb alxamis lañu wàcceel fii 40 tonnes gone yaa ngi nii ñi war a fanaane ngi nii taxaw ñi war a ñi war a gont fanaane ñi ngi nii taxaw bopp rek li ñor ñun nag li ñu ñor mooy ñu néew doole yàlla xam na ne politique ma te ñi ma xam-xam ne ña man politique ma musuma wax ci politique waaye nag damaa gis dëgg gi te dëgg gi dañ koy suul te dëgg loo ko suul suul du teemu feeñ kon xam naa comme que xam naa affaire bi xam naa xat ñu gàtta foofu tànke kàddu yi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant di sant soxna maane seen mi nga xam ne moo ñu fi woo tey pour ñu ñëw seet si leen li ngeen wax it ci wàllu forage bi ci wàllu tali bi muy ranran bi danañ def pexe parce que bokk na ci programme yi nga xam ne war nañ koo tëli ci at mi ñu dugg loolu moom lu leer la parce que ci programme président la bokk teel a dem voté ji teel a voté ji bëgg nañ ko bëgg nañ it bala ngeen a taali añ ngeen dem vote ba lieu de wat bi ma gañe ko te xam naa ne dinaa ko gañee ndax yéen gëm naa ko loolu mooy tax man suma jàkkaarloo ak président de la république ne ko lang ñu sasoon def nañ ko mooy nañ Touba di xam jafe-jafe koñ bi làmp yi tàkkut ñu taal ko euh, fexe ba fi amul ndox ñu dugal ko yooyu yëpp ñu xam ko ba man leen a gën a jàppale ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. incha allah le 24 février su ngoonee dinañ ko def nañ ko daan defee mu delloo Macky Sall mu nekk ci président deuxième mandat waaw après loolu nag xam nga lu nekk ci il faut mu génn mais après loolu dafa am lu ñu war a siiwal ñëpp dégg ko parce que Sadaga ñu defal lu rëy ñun ñu ñàkk ndox ñun ñëpp ñu àndandoo di root root nañoo roota roota root ba bëgg a dee dëgg la de ku la defal teraanga danga koy wax teraanga bi dafa rëy si ñun parce que dañ ñoo may plus de 400 mètres la parce que wii rouleau nga ñu jox rouleau bu nekk mesure nañ ko dafay def 54 mètres. vraiment. jërëjëf mbokki di ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant. di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw te lampi mbedd ya lakk ñu fexe mu defaru wut ay procès jox leen ñun loolu mooy sunuy programme moom la sëriñ bi wax ne ko dugal naa la ci liggéeyu sëriñ Tuba na xam ne fii indi naa fi ndox dinaa dolli ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. so maa fay doxal ba sama tànk yegg si fa sama bopp te ku nga xam ne état de santé mayu ko muy def yenn yi waaye dafa ba lépp ñëw kon son honorable ñi ngi lay ñaanal suñu borom dëbb la kattan ak wér-gu-yaram ba li nga xam ne moom nga yéene son excellence nga man koo yeggal ci barki Serigne Touba barki Cheikh Mourou Moustapha mi nga xam ne moom lañ yaakaar ngoon muy taw muy naaj xamal ni yow la fii laaj sekk moo kii moo fi nekk laaj sekk keneen newu fi à part Macky Sall dëgg neexul. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant. teel président Macky Sall ngeen jàppale ko ñu voté ko mu gagné premier tour. dinañ leen yónnee ay oto yoo xam ne dana leen yóbbu ngeen voté ji mais nag maa ngi leen di dig ne dinaa fi dellu siwaat incha allahu rabbi naa fi dellu siwaat mais nag bëgg ngeen xam bulletin bi ñuy voté mooy marron bi am fas wi. nga xam ne dañ koy barkeeloo ci Serigne Touba yéen a dégg Serigne Mountakha kon nag loolu doy na kon ñu ngi ci bàyyi xel ñu ngi leen di sant di gërëm jërë ngeen jëf jërë